ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lamb la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Balla Gaye 2 ca xët wu njëkk wa démarché pour croiser Boy Niang 2 Balla Gaye 2 réclame de francs CFA gannaaw ba ñuy ngawti ngawtee digganteem ak Boy Niang 2 moom Balla Gaye 2 Balla Gaye noppi na laaj na xaalisam Balla Gaye 2 ñaata ngay laaj mu ne téeméeri millions ak juróom fukk 150 millions lay laaj ci sama diggante ak Boy Niang 2 ba xam le ne Balla Gaye 2 daal bëggul lu yées 150 promoteur ba soxla bile combat ba léegi kenn xamagu ko kenn gisagu ko Max moo nekk ca kanam mooy doxal mooy lijjanti moom la ñu féetale woon sax waxtaan wa ci kaamu Boy Niang 2 moom Max Mbergane bañ ko laajee ca promoteur ba la mu xamle mooy promoteur bu sérieux la combat bi képp a ko yëkkati te pare na pour tëgg ko moom moo ma waxoon ne naa wax ak kaamu Boy Niang 2 moom mu wax a kaamu Balla Gaye 2 waaye li am ba des mooy promoteur bu jub la promoteur bu wóor la promoteur bu sérieux la bile combat képp a ko yëkkati te noppi na ngir taxawal ko journal ba rax ca dolli ne Balla Gaye laaj ke ñépp laaj fan la nëbbatu moom Ama Baldé na fësal boppam ci journal sunu nouvelle je travaille laqatuwuma nëbbatuwuma réeruma man Ama Baldé damay liggéey bëgguma combat bett ma moo tax ma dugg sama ruq di liggéey waaj gu metti laa nekke ndax xam naa ne sama digganteeg Modou Lo dana taxaw damaa amatul kay temps bu may perte ndax laa yeewu jubali wakaam ci sama coach ba bu ma entraîné foofee ba noppi damay dem sama benn xarit bu may jàppale daal di fay yendu bu ma noppaloo ba pare damay demaat entraînement ba may soog a ñibbi sama kër rythme boobu rek ñuy wax naan jàppale wu ma Jules Baldé Junior la sama jege ñaale waaye man ku ma xam-xam ne samay soxlay nit mooy samay soxla bu ñu jàllee ca Fallou Ndiaye ma décroché le premier décembre diggante Mama Lamine ak Jokkel dañ koy fekk mu amaat yeneen i date démb mu nga woon ca CNG jàpp ñaari datam le janvier ak le mars le mu fas yéene amal diggante Ada ak bébé Bismi le mars mu tëgg diggante bébé Biraay Karim ak ma décidé mooy selemele gannaaw ba mu ñàkkee ca arène nationale ñàkk ca terrain gaal gi mu nga woon ca Fimela moom àgg final moo nekkoon problème ci journée yi ñu weesu waaye Fimela porte na ko bonheur keroog ca Fimela finalu na am Modou Faye ordinateur final ba noppi daan ko yëg ci kawam gannaaw mos na ca Fimela Ndakaaroo ko dese ngir mu dellu siwaat wone waat boppam dimanche suba bii daal dana bëri mbër yi wone seen bopp ci ñeenti journée yi am ci làmb ji ca mbuur diggante Zil de Salil ak Ray journal ba xam le ne Sidi Jaxate moo woote foofee waaye combat ba dana mel ni mbojam gerte juróom-ñetti combat la taxawal grand combat ba Zil de Salil Lion Ray combat spécial King Kong ak Dragon Boy Lonance bu Mathieu Pereira ak Auguste bu Aynoumane combat préliminaire Sow Mali ak l'an 2000 diggam diggam ak Caterpillar ne Bour Sine dina laaleeg Siteu bu Kër Mbay Fall safal dana laaleeg Atou 2 capitaine laaleeg Yaxya Diop 2 ñaga Junior ak Vita bu Père Diaw internet ak Pape Dambay 2 caatu yëmbal ak baara bu bàcci Seras Kaana Baas ak Sakadior 2 permi ñoom ak Boy Lo bu Bada ak Boy Bawol journal ba xamle ne bile dimanche dina bëri ay mbër yu yuuxu victoire waaye dana bëri ñu ñu lëng yóbbu bu dee ca lit sans frappe ba adresse ngoor a ngay tëgg sixième journée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 Games et Daju, le samedi 21 décembre sur l'esplanade du Musée des Civilisations. Yé, yé, c'est le Prince Daj. Rendez-vous le décembre à l'esplanade du Musée des Civilisations pour un concert historique avec Voilà Oui, Voilà No Games. Les choses se passent en ensemble comme jamais. Venez nombreux, nombreuses, faire la fête. Oh, oh, oh.